ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat a fait ay effort yu à travers son ministre M. Damdio. Nous avons fait ay effort yu pour dimbale xalé yu jigen yi pour ñu ñew jang métier et cela à tous les niveaux li la jële BTS ba ci souf, ba ci niveau CAP

élèves ci suñu suñu établissement yi nga xam ne moom la ñuy encadré fanweer ak ñett ay jigéen lañu loo xam ne progrès la parce que avant yeguñu woon foofu ñu ngi woon ci juróomi jigéen rek ci pour pourcentage de cent te tey jii nii liggéeyu ministre tax na ba évolution am na progrès am na mais doyul doyaluñu ci progrès boobu dañoo bëgg xale jigéen yi gën a ñëw ci formation professionnelle ndax ñu am autonomie ndax ñu am un emploi décent emploi décent mooy am liggéey boo xam ne dina la tax nga mën a gañe nga am salaire bu baax mën a dund épanouir autonome. ñu ngi fii tey ci benn atelier bu ñu jegleel jigéen ñiy jàng parce que bu ñu xoolee ci école yi jigéen ñi bëri surtout plus ñu on avance rek bu ñuy avancé ci école ci kaw ci classe yu mag yi jigéen ñi bëriñu foofu moo tax tey mu ñëw fii tey. ci turu ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l' artisanat Dame Diop pour ñu xol ñu ñuy def waxtaan parce que fi région ñëpp ngi fi tay ñëpp indi représentant établissement yi pour ñu xol ñuy def ba jigen ñi dugg ci école yi dugg ci école yi ñu téel ci école yi jàngal leen renforcer leen buñ paré jox ay stage ñu dem euh, dem liggéey am plan d'affaires moy boy génn da ngay am këyit bo xamné dalay man su ma génnee damay am sama entreprise bopp ecole bi ñu nekk ni tey muy Thiès lycée technique de Thiès est-ce que xale yi est-ce dëkk bi xam na li ñuy def fii. yéen la ñuy ñaan ngeen ñëw jàppale ñu jàppale ñëpp comme ça ñu xam li ñuy def ci école bi muy jigéen muy góor ñëpp a yem ñëpp a yem.